Fobali ak Guerre Oussab Bokar oh. Ibou Ndiaye Diofior voilà. dër bi Pikine parcelle yàgg naa am. ah yàgg naa am. ah. oh yàgg naa ah, bu neex la de. parce que tamit guerre bi bu amee doole mbër bu amee doole laa la wax dama mën a bëre ak yooyu. parce que bari na combat yu muy dem. am ci yenn amateurs yi duñ ko gëm. mais dafay jëlee surprise. Mm-hmm. parce que bi ñu bëree li mu bu mu ñaan bari na ñu ko gëm. te baat ak tontu la ko def. fàtte nga moom mi bëree jaay maale. est-ce que xam nga ne dina dem papi général bëri def fa fenn xam nga ñi demoon a bëri déggoole ma la wax Ndiaye Malick laa moom te combat na ci guddi yu nekkoon jàpp jokkeel am ko mm-hmm. ñu jox ko ngeer mii ngeer daan mm-hmm. mm-hmm. rek teree daan papi général mais dafa am fu mu aadoo waaye xale bi téye sa loxo dem nga drapeau chef de l'état dem nga tournoi CEDEAO nekk xale am doole mën a bëre di mobiliser macha allah jag si daal di ko. jag si juumul kon nag ah, l'honneur au grand frère jege si nit yaakaar moo ko jëm si la daa mel ni am na lu xew ci diggante bi de. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur ñu ngi nuyu waa axlu làmb ak waa monde entier waa Sénégal rawatina ñu ma àndal. Mm-hmm. suñu frère Pam Ndiaye ak Guy gi di jaajëfal promoteur bi Jax. Mm-hmm. di ko wax mes félicitations. di gërëm ami Kole moom nga xamante vraiment moo nekk si ginnaaw jox di doxal. moo dirigeante lépp. di nuyu waa CNG di nuyu suma suma suma suma journaliste yi ñu góor yi yu jigéen yi. Mm-hmm. di gërëm force de l'ordre yi. di nuyu champion yu fi teew yëpp. rawatina le grand champion. su fekkee occasion mooy Ndiaye. Uh-huh. ci li mu jógee. ci li mu jógee dama toog wallaahi azim. muy mm-hmm. bëre damay toog parfois day tombeek tamit sax may julli. Mm-hmm. barke alxuraan dama koy ñaanal mu jël affaire yi. Mm-hmm. waaw parce que lamb la. li gars daan ku war ñay. ba wàcc ko loo war war la rek. c'est un grand champion. muy mbër bu ma naw mbër bu ma respecté mbër bu ma jox cër. wax na ko. ñàkk ñaanam. tey. fu mu toll loolu lay wax. Mhm. ngeer moo may may sens. Ah. tey man it damay jàpp ne moo may may sens xam lu tax. Mhm. mbër mu toll ni Ibou Ndiaye Obali fi mu toll ci làmb. Mhm. jël titre yi mu jël boo ñàkkul ki ñaan da koy nangu. làmb nag moo ñu boole man muy moom muy beneen mbër ak mu ku mën di doon. su ma sumee koo dinañ xam ne liggéey naa. dëgg la jom fay daa indi. yàlla nag moo yor ndam. moo yor ndam yàlla suñu borom laa koy ñaan. mooy profité ci occasion bi di wax. sama waa koñ gis naa niñ ma taxawoo rawatina sama doom Ayda ak ñoom xaritam yaa xëy Ayda yaa di ñoom Pape ñoom Pape Modou sama batteur yi vraiment sama koñ gis naa mobilisation bi ñu def d'ailleurs sax dañuy def open press mercredi maa profité occasion di presse bi yëpp ñu teew inshallah waaw affaire yi daal mi ngi noonu mm. l'essentiel combat bi li ci des bareetul su ma ndaw la mbër la mm. man je lui respecte beaucoup mbër moo jox cër la mm. mais l'essentiel dinaa wane jom wane fula wane que le meilleur gagne mais balaa balaa balaa ñoo ñëw ci Ibou Ndiaye muy nuyoo amateur yi ne combat bi amoo ci sens lan nga leen di wax danga nga ko jël pour daanu parce que booy bii neexul dara waaw mooy li mooy li may wax chaque jour suma début carrière yaa ko wax yow yaa ko wax léegi mm-hmm. te kenn si la lem bi nga koy wax mm-hmm. man bi may dugg tournoi di souvenir dañ na woon mooy loolu bi may jël drapeau sudu làmb mm-hmm. dañ na woon mooy loolu mm-hmm. lu ne def naa ko ci làmb li ma dese ci làmb mooy ku tey man ça m'a fait plaisir ku mel ni Ibou Ndiaye kii Ibou Ibou Obali mm-hmm. ma bëreeg moom ci sama carrière tey def lu tey fu ma toog dama moom même bu ko ndamoowul man dama koy ndamoo parce que champion déggoo li ma la li mu def ci làmb lépp ak li mu wone ay preuve am ci semaine bi merci beaucoup kon kooku tey soo bëreek moom du ay seexal lem parce que boo arbitre période li ma am lépp dama koy indi jox ko. am na solo wallaahi azim man du ma combine du ma dox ci lu ñàkk fayda mais cër la bu ma jox ma delloo ko ko. am voilà noonu la demee am na solo jege si. booy mbëru Dakar mbëru mbëru ma nga États-Unis. waaw mbër jaar nañ ci. jaar naa ko ba wér Bukar. ginnaaw bu ñu sant yàgg ñu ngi ci usiante bi sant suñu ñaari waajur. waaw di nuyu ñi fi teew ñëpp journaliste yi ak force de l'ordre di nuyu suñu papa suñu père Jackson vraiment amuñu fayam. Mhm. di nuyu suma gars yu mbër yi fi toog yëpp. Mhm. xam nga ak su ñu papa géwél yi. ñu leen di sant yëpp. waa kër Pape Seck. waaw waa kër euh, Pape Seck ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm. Mhm. waaw di nag Jax vraiment kii euh, amuñu fayam Boucar. vraiment dugg si yenn détails yi Jax lamb dafa ko war a jàppale. promoteur bu mel nii parce que kii bu du woon moom amaana man mun naa bañ a bëri. ñaata jeune ngay dimbali te yàlla tax. bu du woon moom tey. champion bii nii mu denda mun na bañ a bëri Albouri kon tey Jax dañ ko war a ñaanal jàmm ñi bokk si journée bi yëpp waaw ak ñi bokk si journée bi yëpp mm-hmm. Jax ñu ngay sant bu baax di nga gërëm di xamal carrément ne bu am dara koy tiit si sa journée bi mm-hmm. incha allahu bi doomu séeréer yi nga tëgg séeréer dinañ nga ko deegoo te gëm naa ko séeréer dinañ ñëw fees stade bi teel parce que seen i bëri mm-hmm. incha allahu rabi foo toll ci waajtaay waaw waajtaay bi maa ngi waaj bu baax a baax di waaj ak di entraîner man Boucar man du ma waaj man damay pare waaw man damay entraîner di nuyu nag suma grand frère suma grand bu ma jox cër muy ngeer maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que sama avance dugg na fu ne. Hmm, waaw mu nangoo taxaw te bokk si champion yi comprendre nga nangoo taxaw wàccee boppam may ñu sens bu ko nekkoon mu bañ ko cee fekk di ko si sant di ko si gërëm bu baax waaw Boucar hmm. di wax na gars yi ne. incha allahu rabi le 4 join fii si arène nationale Ibou Ndiaye mooy diriger. mais mais mais Ibou. waaw bala ngaa doxal tuuti. xale bi ngay bëree. waaw bu buñ ko gëmul buñ ko yaakaaru day ñëw def ci espoir. waaw est ce que xam ne nga baal ma ci kàddu gi këpp katu yalwaan la de. taskatu yaakaar la mais man duma ma ñooñu nag. ñu ma ñooñu sànq ah. dama dégg si commencement wax bi nga ah. naan. Ah. ngeer bu amee doole. waaw ba bu amee doole lu mu def moom. man kenn du taxaw sama kanam di wax man naa li ngay wax man magasin la nee naa la gars yi ay grossiste la. man dama am xam nga gën a garaaw. mooy am kattan ba xam ne yow da am kattan. ah jar woon nga déglu. barke Serigne Touba Mbacke. waaw mais déggoo lu mu laaf dama ne la. gis am yi mu xam na doole moo la koy may. Hmm. waaye nag comme li mu wax rek. Ah. lamb ji moom li ci des bareetul. man boo xoolee aw ma lu may bu ñu waxee dëgg rek te yàlla rek tax. ci combat bi sama dëgg na ma ak moom aw ma lu may prouvé. moom moo ko wax moom mooy xale moom mooy toole moom moo soxla non déglu ma rek xam nga moom moom kenn naatam dewul ne champion la te ndaanaan la loolu wax ju yàqu la moom bu moom moom moom bu fi nekkee sax naan champion la ak du champion la nit ñi moom waaw jarul wax parce que ñëpp déglu ma wax ñëpp gis nañ preuve barki Seydina Mohamed samay doom sax mm. moom la ñuy fooyantoo fi mu mm. samay doom man samay seex yu ndaw eh. parce que xam nañ damay jàpp dama koy seetaan drapeau chef de bi lépp dama koy seetaan papa kii ngay bëreel ma ne leen waaw ma ne leen gis ngeen champion la de xam lu ñu hmm. papa entraînel de. bu ko may dara de am nga combat de. <laughs> yaa ngi dégg. Eh, hmm. kon man xam mais tamit ba pare ma par ma profité si occasion bi nag bi nag bi ñoom duñ ko fàtte nag bi. nag bi nag bi mu diggee waaw. ñoom fuñ toll danaan papa ana nag bi bi mu la dig. waaw ma ne leen ah. waaw no maa ko dig nag. Ah. dama ko bëggoon jox avant kii bi nu mu tudd. avant avant combat bi. Ah. mais. dama si waxtaan ak sama staff yi ñu ne ma non non bu ko def te man du ma wax luy dañ Boucar caméra yi ñoo ma tiim incha allahu rabbi bu jour combat ba hmm. damay dox si kaw ngeer jàpp ko daan ko ànd ak moom yóbbu ko parcelle may ko nag caméra yi ñëw respect bi ma kii woon ma may ko ko xam nga xam man ngeer du ma ngeer du ma dóorante ak hmm. fi nekk ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Père Jax du ñuy laa war a bëréew xam nga ñi ma war a bëréew yow xam nga ne su ma jógee séeréer di jóg te lépp ngay wër si mbër dafa daje si bu Ndiaye incha allahu bi ngeer moom moom moom moom moom côté moom féetee na côté man ngeer damay daw jàpp si tànk yi. Ah, ah, tànk yi may séen nii. màgg na ci tànk yi may seen damay daw jàpp si. mais du ma jéem a xeex ak moom parce que sama grand frère la te dafa am njaboot mais na xam nga may bañ ngeer. gaa yi di conseil conseillé naan nga jéem a nga dóoranteeg booy bi war nga jéem a nga xeex. te kon du baax. Ah. baal ma cokkaas rek cokkaas mënut a ñàkk waaw su ma cokkaasee ko xam naa da ngay jiwal ak man baal ma cokkaas tuuti rek parce que damaa bëgg a yëngal neer yi tuuti su ma koy yëngalee moom xam naa ne day dem xam nga xale bu am doole waaw xale bu am doole waaw neer yi boo ko yëngalee foog mu ñëw neer tànk bi lay jël si de non saay saay xam naa ne xale la te neer day tàng fu ma ko cuq xam naa ne daf ma fay fekk man loolu leer na ma naaññee ah. waaw waaw maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci di julli ci yonent bi comme ni ma koy waxee rek di jaajëfal ñëpp vraiment lu lu nice la moom it di ko jaajëfal mooy li ma la rek c'est un plaisir pour bëre moom champion bu tal na moom fi mu toll ci carrière fi mu toll loolu plaisir am la mais sama plaisir la man maa ngi woo ñëpp waa Pikine ak lu làmb waa Sénégal di jaajëfal ñëpp di woo ñëpp ci open presse bi mercredi incha allah. incha allah jaajëfal lool. jërëjëf Adja waaw Boucar maa ngi woo suma waa koñ waa parcelle 1 ba 26 maa ngi leen di woo bu baax baax waa Inteset sama koñ fi may yeewoo. comprendre nga Boucar. waaw waaw di nuyu suma grand suma kilifa monsieur le maire Go Faye borom réaction. waaw maa ngi koy woo bu baax Go Faye aw ma fayam. yee maa ngi woo raxam mef. waaw maa ngi koy woo ñoom Demba soirée ñëpp. waaw Jax man billet yi ma jot a jox yëpp jënd naa ko. na sa xel dal. Ah. waaw yi ma Jax jox yëpp bi jënd nga lépp jënd naa lépp loolu amu programme ah, ah, waaw man man man man dafa am kilifa yoo xam te ne ne sama ginnaaw te dinañ jënd billet yëpp hmm. man mbëru askan laa gis nga kon bu soobee yàlla man damay mobiliser hmm. comprendre nga ah, waaw ak borom France day jënd moom neen dina ma jënd benn mais yeneen yi ami kooge sax xam naa ne yeneen mbër yi nga xamante ne nii dañuy am programme mu jaay billet bu ñu desalee seen i nga indi ko garaaw man dinaa ko jënd waaw di di di di di di di woo nag suma waa koñ waa Unité sama open presse bi jeudi ga maa ngi siy invité presse bi yëpp daam yu bees taax yu ma génnee waaw open presse bi jeudi Unité na presse bi yëpp ñëw incha allah rabi di woo waa Diofior maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax waaw di di di woo waa Diofior fa commencé croisement Ndios moon ba Ndangaan. Hmm. di woo faat Ndiaye borom Paradise maa ngi koy woo si kombaa bi. comprendre nga di woo suma waa dëkk bu baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm waa Diofior awma seen fay monsieur le maire Youssou Diop maa ngi koy woo l'honorable député Karim Sène ñu ngi koy woo xam nga di wax nag rendez-vous suñu mbokk séeréer yi nañ jóg ñëw képp kuy bëgg Ibou Ndiaye Cheikh Tidiane Niang champion ñu ngay ñaanal ndam ragal féete day xañ a wërsëg hmm. waaw moom nga faral non Cheikh Tidiane ngaa faral hmm. deret buy daw si mooy daw ci man te insha allah bu soobee yàlla lutte simple boobu noonu ñooy jógaat ñëw supporter si fii nii seeni i doom nekk seeni i ginnaaw. incha allahu rabi ñu ñu dooleel Jax ñëw si journée bi neexal ko après ku nekk dégg si li nga nekkoon Jax maa ngay sant bu baax di nga gërëm.